waaw après ah. voilà. waaw salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Mor Ndiaye maa ngi nekk mandataire national du candidat Boubacar Camara et donc démb bi ñu defee tirage bi suñu candidat moo génn numéro un kon tey ñun ñoo ubbi bal bi bi ñu duggee ci salle bi ça s'est très bien passé def nañ contrôle de dossier dossier yi dépose yëpp mu correct ñu def aussi contrôle parrainage ñi ngi déposé woon cinquante huit mille cent 975 parrains muy le maximum et sur les 58 quinze ñu gis ci 6 euh, mille ne 6 mille 69 euh, yoo xam ni introuvable ti fichier bi nga xam ni mooy fichier électoral bi loolu nag mu nekk loo xam ne ñun dinañ ko càmbar à notre niveau parce que mënuñu def parrainage jël recopier ay carte d'identité seen i borom signé ñu dugal ko ci logiciel bi gisuñu ko loolu mu nekk loo xam ni suñu càmbar la lu ñu càmbar pour xool parce que mooy toujours li ñuy faral di réclamer mooy que les candidats dañu war a am le fichier électoral à leur niveau pour ñu mën a xam parce que aussi loolu euh, lu ñuy càmbar la pour mën a xam exactement qu'en parce que carte d'identité boo xam ne bu baax la ñu mu pare ne ñu gis ñu ko ci fichier ça pose problème waaw cependant validé nañu 53 173 parrain valable et on a validé également dix régions yoo xam ni ëppal nañ 2000 moo tax tey conseil constitutionnel validé na candidature Boubacar Camara incha allah dina bokk ci jongante yi mu nekk le premier candidat bu ñu validé pour mu mën a bokk ci élection 25 février 2024. ñuy ñaan nag peuple sénégalais ñu xam ni le président Boubacar kamara dugul ci politique pour ñëw ut lu mu am c'est la solution ndax. dafa def sacrifice yu bari abandonné ay postes de privilège pour ñëw secourir le Sénégal tey Sénégal fi mu toll dafa laaj ñu réparé ko laaj ñu construire ko mu am programme bu tudd tabax euh, Sénégal boo xam ni tabax euh, Sénégal euh, Sénégal ëllëg nga xam ni càmbar nañ ko ginnaaw bi mu sukkandikoo ci benn livre bu mu bindoon construire le Sénégal du future ñu topp li nga xam ni moom la démocratie laaj suñu parti taxaw dem ci citoyens yi laaj leen seen euh, parrainage organiser wu organiser un congrès d' investiture ñu investir ko ginnaaw bi ñu amee suñu programme nga xam ni tey le président Bocar Camara est prêt pour diriger le Sénégal pour redresser le Sénégal donc ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ni muy citoyens yi muy militants yi muy responsable ñëpp ñooy xam ne taxaw nañ ci parrainage boobu ba tey ndam li ñu am ko mu nekk ndam li jëkk bi d'ici le 25 février 2024. incha allah bu ko defee ñu yokk taxawaay ñaan sénégalais ñu yër programme président Boubacar Camara xam ni élection bi ni ñëw élection bu am solo la da di boo xam ni dañu war a tànn njiitu réew vrai njiitu réew mu nekk une rupture mu nekk benn président boo xam ni bu ñëwee. dina faj jàngoro askan wi taxawal Sénégal justice am fi yoon am fi nataangi am fi comme ni ko président Bocar Famara di faral di waxee mu ni dalal xel yi féexal xol yi feesal poche yi kon donc ñi ngi ñaan peuple sénégalais yi ñu xam ni am nañ koo xam ni muy le président Boubacar Camara mooy la solution l'alternative pour 2024 est ci biir. ci biir vraiment depuis que ñu entamé euh, n'est-ce processus bi lépp jaar na yoon parce que ak modification yi am ci contrôle parrainage bi yoon am na transparence parce que aussi rien que li a xew démb ñu def tirage au au sort mu nekk vraiment un tirage transparent vérification également niñ ko procédé dal na xel contrairement ak li fi xewoon 2019 on a vu ko vraiment il une nette amélioration du ñàkk nag am na yeneen suggestion yu def ci temps bi ñu fiy perdre temps bi ñu fi te pour déposer les candidatures ak temps bi ñu fiy perdre pour faire le contrôle loolu aussi mën naa gëm na ni buñ ci waxtaanaate ci yeneen élections yi di ñëw dina mën a gën a gën a améliorer donc n'est-ce pas processus bi. waaw non xam nga loolu wala processus bi loolu nafa mus nekk lu opposition bi di jooy démb rek dégg ngeen ci conférence F24 wax nañ ko opposition bi dafa war am accès ci fichier électoral bi xam lan moo ci nekk ñu koy càmbar ensemble parce que fichier électoral bi mënoo comprendre ko am carte électeur am am numéro électeur am mënoo ko retrouver ci ci fichier bi ça pose problème ça veut dire que fichier bi kenn xamul lu ci nekk loolu nag laaj na càmbar laaj na bu ko defee acteurs yëpp politique ñu xool saytu ko auditer ko xam lan le contenu. est-ce que loolu ah, non mënul nekk suñu faute parce que euh, loolu opposition bi tout le temps da koy réclamer tout le temps l'opposition a réclamé que fichier électoral dañ ko mën a war a mettre à la disposition des acteurs politiques et aussi beneen bi mooy loolu ça été toujours un combat le logiciel bi nga xam ne moom lay càmbare c'est vrai ñun on a eu la chance d'être premier mais ñi ñëw kenn xamuñu lan la ñuy jànkonteel parce que kenn xamul ban fichier la ñu implémenté ci logiciel bi loolu c'est un éternel combat boo xam ne opposition bi yàgg na ko mëne mais malheureusement nous avons en face nest pas un régime boo xam ni bëggul euh, n'est-ce te tëddee njaaxaanay par rapport ak organisation élection yi et on a toujours dénoncé également l'organisation de l'élection par le ministre de l'Intérieur parce que élection une personalité indépendante moo ko war organiser mais de tout temps vous avez entendu 2019 bi ngeen ko posé le président lu mu waxoon ma ma lànk du ma ko def loolu nag yooyu yëpp ay manquement te gëm na ni incha allah février 2024 su alternance amee yëpp dinañ toogaat waxtaane ko nga xam ni vraiment on va appliquer la vraie démocratie nga xam ne élection ki koy organiser du nekk n'est-ce pas un homme politique buy far ci pouvoir loolu rek déjà dafa tey xel parce que ñun on est candidat mais kenn xamul qu'est-ce qui va se passer le jour du scrutin kenn xamul comment on va organiser le scrutin ndaxte ñu koy organiser c'est des responsables politiques du parti du régime actuel loolu aussi c'est on va continuer le combat pour que véritablement ces élections soient libres et transparentes bu ko defee véritablement kiy gagne gagne que le meilleur gagne. waaw à peu près ah une trentaine de minutes ah yàggul ah parce que ñoom déjà dañuy vérifier dossier bi bi ñu ko déposé xool nañ dossier administratif bi. vérifier nag li ñuy vérifier suñu kanam mooy logiciel bi ak suñu parrainage moo tax ab maximum maximum ça doit durer trente à minutes. en français sur euh, alors euh, aujourd'hui euh, le candidat Boubacar Camara qui a été sorti en premier euh, lors du tirage au sort qui a été procédé hier euh, sa candidature a été validée.